par rapport à ce discours yoy non ñu ñu ñuy jot a ñuy yow itamit ci bëgg sa sa analyse parce que des gis sax yenn analyste politique wala yenn journaliste commencer euh, di di fustiger euh, tout ce qui se passe ci en politique autant euh, Ousmane Sonko liñ ko dégg mu wax autant Ahmed Suzanne Camara mais également Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké. waaw soxna d'abord comme li nga ibé moy li Cheikh Abdou Bara wax. Hmm. pour wax la ñaawteefam ëpp na. mooy mhm. nit ñemewu ko répété. Mhm. nit aussi bëggatul di ko déggaat. mooy wax ji li muy bari bari foofu lay condamné yeewi ak wallu seen communiqué gis nga les hommes politiques il faut ñu xam ne ci ay famille la ñu jóge il faut ñu xam ne ay nit lañu mais lan mooy tax ñoom amuñu immunité lu tax nit électeur ak voix rek lañ ko jàppee. ak bataille électorale mais humain ñom japp nañu ñom rek ñoy nit bi li amé cheikh bi def ko l'attitude de yewi ou Wallu lu len téré ñu jéggalu mais lan lay wañi ci ñom parce que ñom ay kilifa lañu té dañuy bëgg aspirer pour donner ay kilifa ëlëk mais génné communiqué défat délégation demaat ci buntu police taxawaat di wane leneen di wan ni diw defoon na ko wala diw defaat na ko wala diw defoon na ko loolu ñun mën nañ ko wax ñun ñu ci société civile yi ñun ñu ci chroniqueurs yi ñun ñu ci leneen mën nañ ko wax ñun mais ñoom ñi nga xam ni dañuy war a jiite parce que dama mës a dégg ay da mbóoj mu ne ab sànni bu bu naree dellu siwaat yàlla na doon wëttéen président Macky Sall wax na ko mu topp ko ba tey mm-hmm. nañu délogé président moo ko topp ba tey chaque jour ñu fàttali ko ko président euh, Souleymane Jules Diop defoon na ko fi ba dal ci ay kilifa bëgg a dëkk ñu ñu ministère c'est des choses yu lay top. beneen bi ci topp mooy président Abdoulaye Wade defoon na ko fi ci président Macky Sall ak nekk mais souvent bu amee ñi far ci politique dañ koy justification mais les hommes politiques lan bu nitu diine taxawee ngay kilifa mu mel ni maam Abdou wala Serigne saali wala ku mu mën a doon day toog ba mu yàgg ne maa ngi jéggalu askan wi ci yii ma yëkkatee kàddu yii ma waaye ñoom ñi nga xam ne ci alalu askan wi la ñu yaakaar parce que man dama ci gisul ci ñoom ku tabax école wala dama ci gisul ku defar entreprise wala dama ci gisul ku def ni Sadio Mané lu si reset yooyu nag askan woowu ñu war a jaamu nag ñoom rus nañ leen jéggalu donc yeewi bi xew-xew bi amee dañu waroon taxaw ñu jéggalu ko parce que fa la ko waxee. benen bi ci top moy fi war nañ ci jangatat kan mo wax Cheikh Abdou Bara doli Mbàkke ku melni Cheikh Abdou bara waxon nako bi wax ci Serigne Mansour si Jamil parce que biñ nan ko Jamil ci affaire yu bi daf ma metti nelawuma lu tax ko répondre parce que ku laal xalifa kër xalifa sëñ Babacar laal ma mais non lay mel aussi bu Serigne mustapha génnee aussi tamit ci waxu déclaration politique jotna aussi ñi nga xamni ni dañu am cieur Touba wala Ñaseen su ñu amee statut yooyu ñu bàyyi waale xel ci njaboot gi bàyyi xel ci militant yi bàyyiwaale xel ci kilifa yi parce que tey lii mu def image Touba daf ciy bokkaale te ku xam Touba xam ni lu dul xasida ak jàng la ñu xam mm-hmm. fa mu dëkkee lu ñu yaakaar ci médiation ñu ne nañ fa dem pour man loolu war na nekkaat loo xam ne ni moom war na cee bàyyi xel keneen waroon na koo wax waaye bu mu doon sëñ Abdou waaye nag comme def na ko lii jéggalu rek moo ci am ba paré ñu jël dispositif taxaw fofu que ni manifestation bi dañuy féliciter d'abord di rafetlu niñ ko organiser wayé wi def nañu mobilisation organiser ko ba paré gisunu fa bal tak fa fetal fa gisunu fa lenn benen bi ci du Sénégal

kenn ku ci nekk def ses excuses auprès des journalistes parce que journalistes yi fii la ñu war a xoolaat seen bopp xam ni ñoom ñooy ñoom ñooy espoir yi beneen bi mooy wax Ousmane Sonko bi ak waxi Bougane bi avant muy def conférence de presse parce que Bougane wax na fi ci président yu mel noonu ci propri ci ci ci président milite dafa am ay militant dafa bëgg a doon président te dafa am ay ndaw te l'âge médian c'est vingt ans am na kaddu yoo xam boo ko yëkkatee say militant mën nañ defe way la parce que dal nañu fi ci lu yàgg Ousmane Sonko nak fofu personnellement il faut que ñu wax ko ni ni kaddu yooyu mu retirer ko parce que kaddu yooyu mu wax que ni manifestation yoyu di am ak leneen ak leneen benen bi ci top mom ci boppam day ñaawlu leg leg. liñ koy dal ak liñ koy accuser ba ay famem di ci am problème Té biñ ko accuser ay nit dé nañu ci ndax ñak gëm tuuma té mom setlu nañu ni fu mu jógee rek ñi sacc ñi ngay jiñ sacc ak ñi ngay jiñ njaboot dañu yor njaboot. seeni njaboot politique ak seeni ñooñ politique aussi nii ñii ñuy jiiñ sàcc di ñu menacer di ñu menacer de mort ñun tamit noonu la ñuy dund moom la journaliste yi dinu Abdourahmane Diouf bërki démba loolu lañ ko def di ko jiiñ déformer ay kàddoom te ñi koy def ay militant politique lañu pour man war nañu bàyyiwaale ci lii xel mhm. mooy homme politique yi li ñu bëgg jël léegi def ko fonds de commerce di jiiñ ñi ñi sàcc te ñi ngay jiiñ sàcc yaag ñoom yéen a génnandoo école yi

bu ëllëgee journaliste waratul couvrir ci ay homme politique yuy wax kàddu gu ñaaw. li Amath Suzanne wax nag Amath Suzanne xëy na feeñ ne la na mais parti politique yépp ci Sénégal pouvoir et opposition seeni militants loolu la ñu dëkkee ci ay vidéo mais ñi koy relayer ñoo war a jël képp ku waxati wax bu ñaaw ci Ablaye Dembourou Amath Suzanne ak ñëpp ba ci Assane Diouf ba si ñëpp parce que ku teg tribune teg fa Assane Diouf teg fa Queen Biz nañu xool ticket d'entrée ak ñan la ñuy joxe ay valeur aussi. am amuñu droit ñëw taxaw c'est des citoyens. dama ni c'était contre exemple xam nga lu tax. non nit bu juumee ci yenn xam nga lu tax. mooy dama ni am na foo xam ni boo fa toogee nit ku saaga ba ñëpp xam ni day saaga su ko rëccam tikulul boo ko defee modèle lay doon. parce que dañuy éduquer tamit looloo tax ba mu wax ci li ma wax ci Bougane ne ko booy tenir propos da nga war a doon président ëllëg Ousmane dafa ko war a doon donc ëllëg bu ñu war a toog ñoom ñu fa toog ñu xàmmee leen ci état. war nañu jombale seen bopp di fa teg ay saakat wala ñoo xam ne boo leen gisee seen i photo ñu ngi wane seen. d'accord seen seen awra yi ci mbedd. alors laata ñu ñëw ci conseil constitutionnel jox Cheikh Omar également euh, moom itamit euh, mu jox ñu xalaatam par rapport euh, à ce qui se passe ci scène politique ak discours yi ñu ciy yi ñu ciy jox dégg. xam nga discours discours, c'est un discours. Un discours euh, doit porter des idées. Un discours euh, doit porter un message. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce discours euh, jarul ñu ce discours mais la classe politique sénégalaise débat médiocre nul débat de bas étage même si tu discutes avec nit sax ba ci plateau yi sax beaucoup de choses

Macky Sall <laughs> yenn kàddu yi waaw après ñu dem wut ay jaxatu affaire yooyu <laughs> mais après lan lañuy wax mag buur la mais dafa am benn woykat Ndiaga Mbaye je je yàlla ko yàlla yërëm dafa doon wax yaa war wax yaa saf bu mu la tax a wax loo xamul sa seek mbooro doon wax accident làmmiñ mun ko constat <laughs> yow tey da ngay toog sax nit bind la sa Facebook daggal la saaga la lu ko neex mhm. ñëpp

conseil des ministres Jacques Bodin su musoon génn rek damay jóg taxaw di ko pourtant je ma que j'étais tout petit parce que les dafa am lu muy xool lu observer et quand vous regardez dans une communication mën nga def une communication parfaite de deux heures mais ben, wax bu ndaw wax vous retenir Ils ont organisé une manifestation ils ont réussi une grande mobilisation mm. mais ce qui on ne parle que de diw lii la je ne défends pas l'indéfendable lu ma gëm rek laay wax wax bi dafa ñaaw amul leneen amul ay interprété amul lii dafa ñaaw parce que nit balaa ngay yëkkati yenn kàddu yi kan koy wax su ma naree wax dara ci Malick naa dindi turu Malick ma teg fa sama tuur ma xool ndax kàddu yooyu dina ma neex loolu ñu wax man buñ ko waxoon suma baay ku ko wax sama baay doo fanaan sa kër c'est ça la vérité ak koo mën a doon c'est des propos yu ñaaw il faut d'abord ñu ñaawlu ko ba pare gis naa nag gars yi dóor nañ seen collé motif diffusion de fausses nouvelles offense au chef de l'État diffamation etc. cetera maintenant foofu la ñuy waxaat mooy bu ñu bañ am une justice à géométrie variable loolu mooy tax nit ñi duñu am sentiment d'impunité quand Penda Ba s'est mis ici pour saaga toute une ethnie dañ ko wutal passeport génn dëkk bi kenn waxul ci ay waxam. Mhm. Ahmed Suzanne Camara bi nga ko xamee ba tey musul wax waxu nit. ba pare bokk si APR enseignant ñoom dañ toog seen biir sax ay daggalante ñaanalante man kooku du jàngal suma doom wax boobu mu wax incitation à la violence la incitation même au meurtre donc tey leneen lu musoon a dal ci ci Ousmane Sonko wala ci dara mais au-delà de ak keneen a ci am ñoom ñëpp autant qu'ils nit ki li ngay wax moo lay tënk débat bi contenu bi mu war a am yaa ngi koy wax léegi-léegi on devait parler si si un programme on devait parler si ban type d'assemblée lañ soxla ban façon député lañ soxla mais le débat est trop trop trop trop bas maintenant euh, bo aussi am y tolé, def peut-être grandeur ak là mhm. euh, Ablaye lu ne dégg fi Omar malet bi malet ah, Omar ko mais peut-être grandeur mais pour man xam bu c'est-à-dire waa ji dinañ utiliser loolu dinañ ko téye ñaanal ma ko kenn mais aussi liberté jambar jum dafa and ak benen baat bu tuddu responsabilité la liberté du dem té la ak responsabilité amna nak yo xamni xam des postures des positions boo ko tu assumes pleinement tes responsabilités nga gérer ko yaangi wax euh, sunu sunu mag ñi démb woy fay Faye bi bi mu naan waa réew mi teelu mu naan xana xol len sunu Cheikh Ahmad Bamba ak Cheikh ibrahim ñoom li doon def def nañ ko bal tàqul sagar xeeñu te géej gi débordé wul donc du wax bu ñaaw lañ ñuy war proposé du loolu la ñu war a indil beneen bi nag ku ñu lebale sa bor ku ku ñu fay sa bor bul mer Souleymane Jules Diop boo ko déggoon da doon toog fële bitim réew di saaga ay kilifa diine di saaga ku ko neex jour bi Abdoulaye Wade wàcce daa ñëw ñu daggaay restam def ko ministre c'est vrai ou c'est pas vrai. Hassan mm-hmm. Diop toog di saaga et cetera bi mu leen ko jaralé jaral na leen ñu né sax terroriste la dem jëlee ko bitim réew indi mais légui bu féké ko xamante mo nek ci kujé bu waxé benn kàddu yat bi dal ci kawam ki nek ci nguur yat bi du ko dal nit ñi dañuy am cette impression de kuma am nday kuma amul nday mais par contre man Cheikh Omar euh, ces propos je les approuve pas du tout anduma ci et benen bi mom titre bi mu am sax au delà de parce que ku xasawaat ci ci ci géopolitique politique sa titre sëriñ teg nañ ko ne parce que ñëw nga ci géopolitique géopolitique malheureusement Sénégal politique bi nag yàqante asib la saagante la waxante lu ñaaw la scène politique est à même à l'image de la société sénégalaise donc bu que nous on a besoin culte euh, même tey li ñuy seetaan mooy il faut nga wax bu ñaaw il faut nga saaga il faut nga wax nga rëy pour ñu déglu la même suñu plateau yi bu ñuy invité euh, soxlawuñu ku am intellect wala ko am bagage bu kawe wala professeur d'université kenn du la seetaan xam nga ko ñu seetaan koo xam ni na wax lu rëy na làmmiñ bi rëy wala na yuux wala nay saaga sa débat neexoon na gis nga boo fi doon professeur d'université bu toogee sa dañ naan non kii boo ko tegee nit ñi dañuy nelaw on a besoin de hableur de parleur c'est grave est-ce que ñu ngi seetaan ça va au delà non loolu laa bëggoon non moo tax ma ne la société bi non société bi moo feebar mais c'est-à-dire xoolal dama la jox anecdote ah, am na ku fi wax léegi-léegi ne wax ji kenn mënu ko nettali xam man damay toog xale lu bëri dañ toog démb si guddi mu ne ma waa ji lu mu wax bañ téye ko ma nettali même propos yi ma tourné sama ben xarit panam ay Omar yow tamit de li wax ni ëpp na ci yenn ëpp ko dafa ëpp dafa dafa daanu pour man euh, il doit faire ses excuses samandé aussi. Hmm. Euh, nit ku dul amul. aussi war na preuve de grandeur parce que comme da ko ko ci kaw am donc nañu nañu temporiser surtout que ci moment bi ñu tension politique violence verbale bi war nañu temporiser sénégalais yi lu ñu soxla fi toll nii maa la essence ordonnance te ni ñu koy may mooy ñu am jàmm quoi. Mhm. mais pas ci chaque jour ci fitna jàppal ubbil tëjal. très bien alors euh, euh merci cher donc euh, loolu moo nekkoon. Euh...